bokkuñu cafin cofi ya yaa bër son baat sa dër ñoo bokku juddu géej waaye bokkuñu cafin suma doon buur suma buur suma buur suma buur

Pape Diouf ñëwal. secrétaire. ah. yaay. ndeysaan. baaw. ku dégg ku dégg baatu ma pende ci wéy wi. de de de déggal ma benn baaw déggi déggi teg teg gi dégg ah, gi gi dégg gi dégg dégg ah gi dégg gi dégg gi dégg dégg dégg dégg dégg dégg juddu baax màgg baax ràññee baax bonoon omaro ndeysaan baaw kii mën a wëñ ndeysaan déggal bi musique bi ak fi muy teg bois bi teg ni la yàlla yi terale déggal baayam ma penda ndeysaan xoolal ni muy yuuxoo déglul lu góor déggal eh, eh. eh. aka yaru yaru bilaay lii dafa ëpp mu ngay wàcce waat foo jëm pap déggal ah oh. ngari waaw fasu naaru góor yi borom fasu naaru góor yaa ma leen gane <laughs> déggal gib gib gib gib gib ah ah ngani ah ndeysaan ñaaru góor yi yaa ma leen gën <laughs> li moo tëggaay <laughs> ndeysaan way saa wala lala yàlla tërale dëkk jib jib jib yaa ndeysaan baayam jéggal bi ndeysaan tey ba boor mi ndeysaan dëggal eh, li muy wax dafa rëy bi jaam eh eh eh eh, eh, eh omoro ak yaro ndeysaan <laughs> moo yaaru moo yaroo déggal moo yaroo su la neexee ngeen di day dem moo yaroo eh <laughs> ndeysaan déggal li ah xale yi moo dina ah ndeysaan eh, ah. borom ba sunna borom ba sunna borom yaa maa leen gaal déggal da da da da da da da da da borom façon naa mu noonu yaamaa leen gën a billaahi li mooy dafa ëpp jéggal bi sëñ maam faati ndeysaan hymne national bi mënul ñàkk. uy uy kuy boon bi sëriñ bi gerte de de maa ngi nii man leen bëgg Pape loo war a wax ci man kan ngay bëgg a bul ma woo de wax leen kii sama baay waa ju baax baal ma ngir yàlla bul miite kenn dimbale ma loolu su ma benn modérateur bul miite kenn ku bind maa ngi gis lu muy bind mais da ngeen war a xam ne man la fi yàlla teg maay star bi comme den ma bëgg am complexe wax ma ñëw di ma seetaan awma seen fay buñ ma seetaanu rek kenn du ma seetaan muy benn deuxième bi maanaam noon bu xolam bon ba munut maa ñàkk seetaan mais dina ñëw bàyyi clavier am lu ko neex wax may leen loolu <laughs> ñu ambiance ah déggal déggal dégg mooy yaay déggal loolu jabel mooy chéri kan wax ko ñu dégg waa limal ay doomam nag aha nag ndeysaan uy uy uy jég jéggiin jég jég jéggiin jég bilaay maa ngi nii borom 19 heures Pape nga ne borom lan ngay woy eew ma ci baatin àndalaa nag ah doy waar garab gu baax gi tudd ko ma dégg doom yaayu kan. doomu yaayu kan. ndeysaan. ndeysaan. dag ci tooj di ci mayu. dag ci tooj di ci mayu. koo bëgg Pape. billaay walaay daf maa bëgg. Alima Omar. Agathie. doomu yaayu kan. Jabel Chéri kan. bilaay alaaj Pape Thiam maa la bëgg bàyyukat yuuxul Fatoumata Zahra bi waa Pape yow koo bëgg cheikh bi ndeysaan li dafa bari mu ngi tuuru déggal tama gi Pape nga ne borom lan dégguma nga ne borom lan ngay jiiñ ba tey borom bi jeexul boroom lan ndeysaan waaw yuuxul Cheikh Ahmed Cissé gi nag nit ñi dégg Cheikh Ahmed Cissé ndeysaan waa Gambie lu ñu wax Nigéria nag à fu def Ghana nag bul ma ne Angleterre tamit dañoo wax allez lu ma ci mën dañ ci tooñ ku yaay dañ ci tooñ dañ ci tooñ dañ ci tooñ borom àndala borom baatin bi borom faydu bi woo billaay dañ ci tooñ xam ni dañ ci tooñ dañ ci tooñ sëriñ boon <coughs> biddal leen ma toxo maa ngi sëqat <laughs> pap ah ah wàcceel musique bi nag boo paree neel waxal déggal yi <laughs> mu ne na neexuma leen billaay kenn bañu ma wallaay kenn bañu ma billaay kenn bañu ma wallaay kenn bañu ma billaay kenn bañu ma Cheikh Ahmed Cissé waaw woo leen ma Kaliphone waaye <laughs> jag jag jag it digin tey teyaan gën a leen dem ko doore li maa ko fa am lu xeere laa lay tegal ni barki sëñ baam dëg gi gi gi réew dëg dëg gi gi réew dëg dëg gi gi réew dëg dëg gi gi réew dëg dëg gi gi waaw Gambia nee nañu yawa Nigeria nee nañu yawa Walondon nee nañu yawa Medina ne nañu yow Ndakaaru ne nañu yow Gana ne nañu yow dëgg ci tooñ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg soxna Xadi mooy sa yaay Alaaji Maalik mooy sa baay yow yaa baaxi baay Cheikh Ahmed Diatta baax yaay baatin bi dang ci tool <laughs> bilaay lu xeere lu tegal lañ laa lay tegal ni barke sañ baam <laughs> war na ngeen def nag ci lu ngeen ne xale yi maanaam liy dëgër a ngi dëgër liy tooy di tooy ma ah. <laughs> tooy xepp bilaay da maa bëgg waaye yàlla xam na ne man maa leen raw billaahi yàlla xam na loolu man ñi ngeen bëgg walaay maa leen raw seen cofeel ci man nag yëg naa ko moo tax ba saa yu ma taalee ngeen ñëw waaye su ma bëggut a taali taal maa ngi nuy suma jabar bu baax a baax di ko <clears throat> sant di ko gërëm temps yi moom dëgg dëgg dëgg bi mu duggee ba tey ku ne xam na ne sëriñ bi sëriñ bi ñu xamoon ak sëriñ bi wute na cat moo ma dugg suma bët bi am na lu ci dugg may leen ma tuuti xam nga cat moom day gaaw a jàpp nit <laughs> sa cat noonu <laughs> maanaam suma jabar mu ngi def rôlam ah mu ngi def rôlam bu baax a baax ci man yàlla ma ko yàlla fayal ah dama <laughs> toog xool ko ma ne ko séeri mu ne mu ma ne ko mais lislaam nee na ma ne ko mu nekk nii dagan nga ma kaw ba suuf <laughs> mu ne naa ko yàlla baax na dañu yàlla musal ci cat <clears throat> tey dafa am injustice bu xew <clears throat> ci diggante benn jigéen ak sëriñ bu tudd Sang Njaay léegi nag Sàng Njaay buñ ko waxee ci biir jamono xel yi dafay dem ci xalifatullahi fil ardi fi haazal waqt muy sang barhaamu njaay mu sell mu rafet mi nga xam ne mooy borom taar bi dafa donn ci baay ba donn taar ci baay barham njaay bu njëkk barham njaay déglu leen bu baax bu njëkk dafa ñaawoon ñuul waaye bi mu demee ba doon sang barhaamu njaay <laughs> mooy jëmmi taar jamaleetu ilaahi ci moom la feeñ ma répété wax ji pour ñu déggu dégg dama ne barham njaay Barham Ndiaye bi mu nekkee Barham Ndiaye ku ñuuloon la te ñàkk solo lool waaye bi mu demee nag ba doon sang Barhamu Ndiaye mooy jamaleetu illaahi mooy jëmmi taar waaw benn waaye daf ko xol yàgg mu ne ma man kii ay jabaram làññee ma ne ko taalibe mi nag <laughs> ñi koy xool di ko bëgg mbëggeel gi du yokk te du wàññeeku <clears throat> Barham Ndiaye bi may wax du sang Barhamu Ndiaye mu bàyyi ñas Barham Njaay bi sali ñax-ñaxal la dëkk sëriñu tariyaax la ba mujj doon sëriñu tiriyaa yàgg dem tribunal ba nguur gi nangu ay alalam moo am problème ak benn jigéen joo xam ne jigéen ju jàmbaare la jigéen ju bëgg liggéey la jigéen ju bëgg liggéey la xam boppam te nekk ci liggéeyam ah mu jotee ak barhaamu njaay sang njaay bii ñuy wax baraam bii ñuy wax sang njaay nekk mbuur ñax-ñaxal lan moo leen jotale lan moo leen jotale loolu baal leen ma tuuti léegi ndaw si moom dafa am jaba jëkkëru tubaab jëkkëru tubaab la am muy liggéey ut salon loué ko mbuur bi mu amee salon waa ji def lu garaaw mu jël fi nga xam ne fa la teen nekk teen teen bi ñuy naane teen yi ñuy gas pax mu ci diggi palaas bi ñu muur ko ba nga xam ne baax na ñu muur ko ba nga xam ne baax na ñu luye ko ndaw si taw ko ne teen mu fa problème boobu di dem di dem di dem <coughs> ba yegg ci outbreak am ñu jote mais si ndaw si jëndoon doon jaay ñu dugg fa sàcc ko xeex am fa di ko def menace de mort bi dossier bi demee ci létt naa Njaay xam nga toog ci internet wax ci takk der yi man du lu may sawar ndax lan mooy takk der ak ñan ñooy takk der takk der mooy ñi ñenn ci société bi ñi nga xam ne dañu jël seen njaboot seen utum alal seen bakkan teg ko ngir sa jàmm yow mi nga xam ne civil nga kon kooku man dumay may sawar di wax ci moom li tax duma sawar wax ci moom mooy sacrifice bi mu def d'abord pour nekk takk der ku ne xam na ne takk mënoo caa riche ku ne xam na ne takk der mënoo caa amee ci kër yu rafet te liñ fiñ dëkk leen dëkk lu ñu nàmp la ñu nàmp li ñu xam lañu xam li ñu bëgg lañu bëgg ñoom léegi nag ci biir loolu dafay baax ñu xam exactement rôle lu takk der mais naa Njaay bi na taxawaat taxawin bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci takk der na def defin bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci takk na wax waxin boo xam ne moom la ñuy xaar ci takk der bi ma jotee dossier bi def ay investigation am na ay wax yoo xam ne ci seede ci moom des na rafet waaye nag boroom njaboot la dëkk ci dëkk bi di kilifa di def liggéeyam du man maay toog bonal ko dama ci tuuti te duma ko def mais li may wax rek mooy nguur gi fi jóge dafa am lu naqari woon askan wi mooy jaay doole gi amoon ku la naqari xool la nga xeelu ko nga ut sa commissaire sa lieutenant wala sa adjudant jàpp teg benn place yóbbu am sa juge yu lay defal sa justice am ay procureur yu la signé li bokkoon na ci lu tax gouvernement Macky Sall perte léegi nag su ñëwee ba ci gouvernement bi lañ doon bañ ba jaraloon ay ndaw seen bakkan man musul maa jaral suma bakkan man nee naa suma bakkan bi joxuma ko sax lislaam suma bakkan maa ko moom yàlla mi ko moom rek laa koy dellu saa yu bëggee jël-jël joxuma kenn suma bakkan waaye am na ñu jaayoon seen bakkan pour projet bi ñooñu dañu mérito ñu respecté te honoré lañ doon liggéey ak doon ko naqarlu lañ doon liggéey ak di ko naqarlu du lenn lu mooy injustice kon let naa njaay mbuur dossier bii nga xam ne mooy Patricia ak Sang Ndiaye bëgg neen sa taxawin doon luwaa kese sans yërmande sans considération mais sans parparlo far ku ne am na droit police dëgg la far waaye warta parparlo ba tey wax ji maa ngi koy wër ngir respect bi ma am ci takk der su ma neexoon tey ma toog wax la li ma neex munoo ci dara dooma jàpp dooma yóbbu ragaluma sëriñ maag yàlla ragaluma ko suma diggante ak mais nag om euh, minimum nga considérer coono nit ñi ci seen liggéey jox leen respect boobu bonul kon li nga xam ne mooy li am mooy mbir mi ñaaw na lool te pour man takk der yi ni ñu ciy doxale yéex yéexal bi c'est parce que dafa am fu ñu far c'est parce que dafa am ku ñu àndal c'est parce que liñ doon jooy ci jamono Abdou Abdoulaye Wade jooy ko Abdou Diouf jooy ko Senghor jooy ko Macky Sall ba indi patriote yi mooy continuer ba tey muy même régime même système mooy ku tooñ ak ku tooñut ça compte pas ci kanamu loi mais ki am bralo moo compte looloo tax nag ma bëgg ñu taxaw ci mbir mi pas faral kenn mais faral dëgg te joxe dëgg soxna si nanga def Patricia. salaamaaleykum. maaleykum salaam mbay yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm waa sant na bu wér. yow sa problème ak ki nga xam ne moom laa dégg man maa la contacter parce que ñoom dañu ñëw paa bi ne yow danga nga yow lii nga def. danga daan nekk foofu doo fay loyer yaa leen agressé yaa dem ci kër gi biñ ma waxee ma leen man du ma fonctionner noo xam ne nit dafay ñëw rek yàq der ci man ma jël ko kooku lan la ñu ne jigéen la yéena ko loué mm-hmm. place ñu ne waaw donc ma lay laaj euh, yow di daan fay sa loyer normal wala doo daan fay. dama daan fay normal yoroo ma leen dara. ok ban année leen la loué place bi. weer bi passé ak weer koor am naa ak ay mois. lan moo xew exactement. en fait lan moo xew euh, man maa ngi sali sali ñax-ñaxal restaurant yi sundur ancien restaurant yi sundur. yu sundur leen ko tuddee wala yu bi xaw ma si dara. ok euh, kii ka noonu la tudd ñax-ñaxal. Mhm. ancien restaurant yi bi bu quatre-vingt mille ma donné un mois d'avance. un de caution léegi si biir magasin boobu ndekete dafa am teen boo xamante ni plusieurs mètres plus de trente mètres profondeur léegi moo fay liggéey liggéey aw ma fa benn problème. nga ne dafa am teen bi ci biti la nekkoon wala fan la teen bi nekk exactement. non non si biir place bi la nekk si digg teen si digg place bi magasin bi. maanaam magasin biñ la luwee yow pour nga liggéey doomi aadama yi war faa ñëw di defar bopp. di defar lu ne fala di biir teen bi nekk. waaw si diggi si diggi magasin bi waaw. ok teen bi fu mu nekk képp ku ñëw ci palaas da nga koy gis wala doo ko gis. da koy gis. maanaam dangay xam ne lii teen la. waaw. mais nit ñi kon mën nañoo bàyyi seen xel ne lii teen la quoi. waaw. ok te yow bi nga doon jël palaas bi xamoon nga ne lii teen la. non non non waxuma ko te nekkul ci contrat aussi. nekkul ci contrat bi ne fii teen la yow xamoo woon ne teen la. yow xam léegi nu ma découvrir du découvrir fii teen la. seen pompe bi léegi teen boobu mooy alimentaire ci suuf ak ci kaw këram ak salon bi yëpp teen moo koy alimenter. Mhm. léegi léegi nag pompe bi am problème. bëggul man ma xam foofu dafa am teen mu dem si salon bi wax sama employé bu tudd Juliette Sank mu ne ko woo naa Pati Pati moom wax ma ñoo def travaux te waxuma dara par hasard ma daal di yóbbu añ sama employé bu ma demee ma gis ay toj-toj ma ne ko Juliette qui affaire bi ça mu ne ma c'est le propriété de la maison ma ne ko arrête moom su loué nit te fii sama place la su amee lu muy defar yor ma sama numéro ne jekk di téléphone am woo ma ah, am naa de lu ma bëgg a ci salon bi de un waxuma ko ma dal sama kaw employé ma ne ko salon bi dafa yor numéro commercial nit suñu mu ne pati nangam danga may yëkkati téléphone bi nga woo ma man ma xam lu may ñëw ba mu waxee noonu ñu ñëwaat entre euh, jours pompe bi luñ ko def baaxul ñu ñëwaat di defar Juliette mu ne euh, gaañ bi ah fii de moom doo leen sama autorisation patron ndax keroog ñëw na defar bi ngeen yàq laaf tête bi yàq lave bi saccagé ay ay ay bagage ngeen yàq bu ma ñëwee Juliette mu ne ko ah ak dëkkandër la garaawul waa mu expliqué ko waa ji waa daal di woo patron mooy ouvrier bu mu yónnee woo patron patron mu ne ko ah loolu moom wóorul ñëwal mu ne waa ji woo ko mu ne ah sama patron mu ne naa mu ne waa liggéey waa ji mu ne ko non non man du ma abusé place jàmbur mu dem kooku bu mu demee mu yabalaat deux personnes léegi bu mu ñëwee Juliette mu ne ko doo leen liggéey rek ñu kii ñu jaayi Juliette doole mooy jaay mooy maanam dañ ko buux Juliette daal di daw génn salon bi ak client yëpp génn plus de six bu ñu génnee Juliette Juliette woo ma ma daal taal sama oto salon bi ak sama kër gi même pas trois minutes res man même ñax-ñax la même alignement bi la taal sama oto dem génnee waa ji bu ma leen génnee jour c'était un jour de samedi dimanche ñu ñëwaat mu ñëwaat génn leen ma oto ànd ak sama tonton papa dem police bu Saly ma expliquer sama situation ñu ne ma il faut prendre un huissier pour faire constat ma jëloon huissier mu def constat mooy liggéey ndox mu sans ndox mais root ndox bi yëpp ko sama oto di ko yóbbu si place bi comprendre nga léegi mu toog deux semaines troisième semaine boobu moom nekku fi mu jógee Dakar ñëw dugg ci salon bi sans nuyu sama employé mu jël ubbi. moo def loolu. Serigne Sanga Ndiaye muy ku ma luwee magasin. moo jógee Dakar ñëw sa biir magasin bi mu la luwee sans sa autorisation sa avertissement. waaw. mu dugg sa biir place. waaw bi mu duggee fekk na la fa wala fekkut la fa. fekkuma fa mais sama employé bu ma woo si la taal sama oto fekk ko foofu nit yi ñu ngi fees foofu ma génne ko mu mën a du génn ma génne ko ma jote ak moom xëccoo bu ma xëccoo boobu si la jël marto bi rajaxee sama seetu yépp moom ak boroom. moom sang njaay sang njaay boroom paasabali ñoom ñoo yàq sa palaas bi daal ñoo saccagé waaw nii leen def palaas bi yéen a ngi gis waxal continuer li ngay wax léegi nag bu ñu saccagé place bi j'ai encore appelé ICM une deuxième fois mu ñoo def constat mu ñëwee def constat bi. mu nii leen def place salon bi boobu nag amatuma fu may liggéey te foo du ma liggéey foo xam te dafa am teen ñu dem fa lu yàgg ma jël euh, si kii problème bi ma jël avocat sama ci kër jëlal ma avocat muy maître seen avocat bu ma kaa macha allah mu ngi def liggéey liggéey bu baax bu ma jëlee j'ai déposé une plainte au niveau du procureur. grand espace Dongour bu ma déposé dossier bi jël temps ba le vingt ba keroog le quatre bi ñu woo ma sama benn cliente woo ma bu jigéen bu doon romb si oto mu ne ma sa ko da ngay déménagé ma ne ko ah, ngi daj sa ñu ngi daj sa place ana mooy loolu ma ne ko noonu si laa taal sama oto ana sama mag bi mooy sama taal sama papa Cheikh Amath Tidiane. xaaral may ma may ma may ma may ma yéen ngi gis. Mm. fii mooy place bi. bii mooy place bi nga xam ne. ci biir salon bi la nekk gis ngeen bi ñëwee leen toj salon nii yàq bagaasam yi gis ngeen teen bii nii ci biir palaas la nekk boo xam ne palaas bi nit ñi den fa doon ñëw di liggéey di fi ja di fi meesu di léttu di def lépp gis nga ci diggi palaas bi la teen bi nekk teen bi 31 mètres la ci suuf ci li ndaw si wax gis nga ñoom ñoo ñëw coow nii ba génnee ba yàq bagaasam yi nii gis nga ñoom ñoo coow ba yàq bagaasam gis nga lii ñoo ko indiwoon pour toj place te ñoom ñoo ko luwe gis nga magasin baa ngi nii gis nga magasin bi mu ngi nii kayit yaa ngi noonu UGB gi yépp kii mooy sang njaay gis nga li lii la indi woon doon ko menacé ne daf koy liggéey sang njaay ngi nii paa bii mooy sang njaay léegi continuer madame léegi léegi nag bu ñëwee paa bi moo nekk goroom paa boobu bu muy menacé moom nekk goroom sang njaay moo nekk lu tuuti loolu te mu sol lu yi léegi na bu ma kiiwee paa bi goro sang njaay la waaw moo sang njaay moo takk doom paa bi mooy ku xees bi mami saabale kii mooy papa uh-huh. léegi na bu ñu defee ay kii bu jour bu ñu euh, dajjee magasin bi. ku xees kii nii ku xeesal ku xeesal yaramam ba yaramam bi dagg nii moom lan la ci moom. mooy jabar Sanga maa ngi ñëw foofu. ok. léegi nag bu mu kiiwee dajjee place bi ma jël IC bi jaw ma fa de ma ànd ak sama Cheikh sama mag bi dem jël IC IC bi ñëw mu nuyu nuyu ko. niir xoolal sa message bi en attendant comme ni ngay waxaale ni xoolal sa message. si mhm. si. dama amee ci biir waa baax na. Mhm. léegi nag ma jël IC bi IC bi ñëw. bu mu ñëwee def constat mu nuyu mu ne mu toog si buntu sangu bi mu ne ma dugg mooy mami saabali mooy jabar si sanga njaay yor butéel saafaram toog mu ne du ma dugg faale ma ko mu dugg mu ak ji ak butéelam maa ngi toog IC bi mu yëkkati carton mu ne ko man la maître nangam. kii mu dafee moom moom moom mu daggal ko ndey mooy jabar sanga léegi kooku def liggéeyam bu mu defee liggéeyam ba pare allo. maa ngi lay dégg bu baax. waaw kooku def liggéeyam defee liggéeyam ba pare mu constaté fan euh, na mag bu ñu wax Asia muy moom a euh, jokk euh, huit cent mille un million sax parce que greffage bi un million deux cent laa war a fay. mu jox ma huit cent mille jënd greffage vingt cinq pièces moo ma boole sax client te moom yàgg na li may boole ak kii moom may yàgg di jaay ay sëb mu jox ma valeur loo xamante ne huit cent si ay greffage yu ma jënd fekkuñu ko fa ñu jëwaat ay permanent yoo xamante ne ay fond de teint ay bagage yoo xamante ne du may liggéey sama jëkkër moom ko indaale France pour ma liggéey loolu jël nañ ko ñu toog lan lan dem kii bu ñu kiiwee noonu ma daal di ànd ak IC bi ak sama mag bi dem section de recherche bu ma demee expliquer commandant bi commandant bi mu ne demal ci enquêteur bi mu jox la trois convocation ma jox leen bu ñu bu ma demee section de recherche dem wuy di ñoom ñëw ma toog ba presque euh, midi moins ma daal pour jël papier bu mujj bu mu doon tapé bu defoon constat bi bu jël bu tel saafara boobu sotti ma ko sotti ICP sotti nangam papam dugg si bu mu barki bu mu yor noonu gàllaaj mu ne ma dinaa la sol ngelaw te di dee trois jours laa la may. kan moo la kan moo la kan moo la wax ne dina la sànni ngelaw trois jours nga dee ku la wax loolu. Paa Sabali ak doomam. mooy Paa Sabali. mooy ci rouge bi. ok ah. paa bi moo jur xale bu xees bi. waaw xale bu xees bi mooy sëy ak Sangi Njaay. waaw. nga ñaar bi foofu moom vidéo laa lay ne ni di nga ko gis léegi nag bu mu kiiwee noonu bu mu naam dinaa la sol gelo bu nga dee ma ne ko yow ma ne ko naam yàgg nga di def lu bon man nga teeree ndax man tooñ ma la dëkk dangaa violé loi mu yow ma luwaaleew ma ma la tooñ maa la tooñ ma respect laa sëkk ak yow tey il faut lu mu war a def problème su amee nga ñëw wax man nga ne ah lii ak lii rafet waxuma la saagawuma la waxuma la bref mu kiiwee noonu ma dem ba ma jógee si comme kii section de recherche boo leen demee ma demaat encore ma ba bu ma ñëwee commandant mu ne say papier jógee na fenn tribunal ñëw na depuis le 28 le 28 ba léegi. police woo 28 ci ban mois. 28 bii passé. ok. 28 juin bii nii bii passé. Mhm. waxuma dara. ok. vingt huit juin bii nii bii passé. Mhm. waxuma dara. enquête di tapé même temps affaire yooyu après bu ma paree foofu si la ma joxo kii pe kii convocation mu ne naa ko yóbbu chef chef de quartier ma taal sama oto dem chef quartier bi jox ko convocation balaa ñu añ noonu ma toogaat 17 heures ma dem de quartier ne ma waaw ñu ñëw pour wuy si dem ñëwul ma toog toog de ñëwul. yub naa njaay woo ko devant man mu ne ko Serigne Sanga Njaay mu ne naan mu ne ko yow anaa jotoo convocation mu ne ma dem lañ ma ko door jox mu ne même suñu la joxee démb lu tax ñëwoo mu ne damaa yaakaaroon onze heures la ma laaj ma onze heures nga def kii heureusement damaa photo convocation ma wan ko ma ne ko dix heures te bu ñu lay jox convocation dañuy wax heure nangam ngay dem wuyu parce que am na ñu jàng am na ñu jàngul affaire yooyu ñëwul ba toog léegi nag après ma xaar naa ba sonn yow yóbbu naa mu ne ma demal suñu la soxlee dinañ la woo far tey bu ma yeewoo ma dem bu ma demee foofu ma laaj ko ndax ñëw na mu ne ma ñëw na waaw moom ñëw na des na pap euh, kii ne paa bi ak mami Sabali ak dañ dinañ déglu aussi tamit xale bu jigéen bi bu géré sama salon muy Juliette Sankar waaw. ok yow léegi lan nga bëgg exact. <coughs> lu ma bëgg man lu may ñaan. yoon na def liggéeyam ndax man jigéen laa damay daaneel dool damay daaneel sama doole sama papa génn na àdduna maa yor sama rakk kii affaire problème bi damaa sëy ak nasaraan def cinq de mariage maa ngi sama sixième année de mariage ak problème sama jëkkër dem ba mu ne Sénégal amul loi boobu laa nekk su ma ko woowee sama jëkkër du jël su ma ko yónnee message du jël jël problème bi su de famille la waaw lu may ñaan yoon def li ndax salon bi damaa génne xaalis bi rek tal équipement salon maa ngi fay 4 millions 500 salon bi sans compter matériel fa nekkoon tooñu ma tooñaale ma aw ma mois derrière naa sonn naa damaa bëgg yom def liggéeyam ndax nit dem place jàmbur am sañ-sañ jigéen buy daane dooleem di liggéey yoroon la dërëm nga luwe nit ki place boo xam ne dafa am teel dafa doy waar sëñ bi dafa doy waar tooñu la saaga la waxu la dara mu na def fa ay travaux sans autorisation mu jóge fa nga saccagé ay bagages am jóge fa dajji magasin sans ordonnance juge mu jóge fa génne sama bagage yëpp mu tëj salon bi tegu ko fet injustice ba mu ba pare ne ma du mujj fen du mujj fen dina ñàkk sa àdduna dinaa def nangam di menacer loolu yëpp. yónnee naa la ko léegi nii si PVDC yëpp ñu ngi fa trois PVDC laa am damaa bëgg yoon def liggéeyam ndax nii damaa bàyyi sama appartement ñibbi si sama village suma ma luwe hmm. neexul ci xol te surtout nit koo xamante ne yaa ngi ko luwe prix ak ay mois yorul la dara dafa doy waar. Mm-hmm. injustice bii laa bëgg mu jeex si réew mi aw ma benn ku jàppale sama mag bi moo nekk taaw. bu feebaroon ma faj ko tànn man maa nekk yor seen responsabilité c'est une fille de quatorze ans war a fay seen école di ndekki ndekki engrais courant bokkul su ma nekkoon dem di def lu ma neex mais maa ngi liggéey ñëpp xam nañ ma Patricia liggéey la xam kenn xamee ma si affaire bon respecté nit kon trop c'est trop injuste bi dafa doy waar dafa doy mm-hmm. waaw affaire bi nii la demee bu fekkee dañ laa woo wax la loo xam te ne amul man mii maa moom problème bi maa lay expliqué nii waaw. daf maa bett nag si affaire bi soo ma bettul woon dinaa lu yónnee yeneen yëpp ak gàllaaj yi fu ñu wiis fu ñu kii vidéo yëpp su la neexee mu yónnee la ko léegi nga xool ñu def ay xaati leen ay fekk nangam yooyu yëpp def nañ ko. d'accord. waaw. jërëjëf. jigéen la. mu luwe ci palaas yëkkati valeur quatre millions def ci salon bi di jaay mèche eyelashes di defar bopp kër gi mu luwe sëriñu tiriyaa bu tudd sang njaay moo ko moom moo ko ko luwe ba mu koy luwe kër gi ci contrat bi musul ko wax ne fa ma lay luwe am na teen fekk teen bi alimenté kër gi yëpp ndox mu ngi ci digg salon bi ndaw si di fay loyer quatre-vingt mille francs chaque mois benn bi sang njaay yónni ay liggéeykat ñu dem ci biir salon bi pour génnee la fa nekk defar teen bi keroog la ndaw si di door a xam ne teenañ ci biir salon bi bi ñu ñëwaatee pour liggéey mu dàq leen ci biti sang njaay jógee ko Dakar ñëw duggal boppam ci palaas bi sans autorisation ndaw si dama bëgg ñu xam ne senegal moom kër walla moom palaas taxul nga moom nit ñi fa luwe nit ñi the very moment ñu sign contract fay seen xaalis yéen a am droit waroo dugg sans autorisation walla justice may la yoon mais senegal rek ngay gis ku la luwe sa ngay nelaw mu fëgg la na la fay ma luwaay am na procédure yu ngeen war a jaar ci ku war a fay ak ci warta fay léegi la waaye borom kër yi dañ daan dugg ba sa néeg buddi sa télé yóbbu seen néeg ne boo leen fay doo ko jot te ngeen dem ñu ne la wax nga dëgg moo moom kër gi fay ko luwaayam mais àdduna weesu na foofu sang njaay waaxu ba ci biir kër gi ba ci biir place bi ne dafay defar ndaw si ñëw na ko fii suma place la amoo droit génn Sangue Ndiaye mën du génn moomoom place coow am fa mèche yi nga xam ne xaritam moo ko joxoon valeur un million nangam mu jënd pour jaay mèche dem ci coow li parce que xam ngeen ne senegal accident sax dañuy sàcc accident bu amee ci àll bi nit ñi dañuy takk saret di palper nit ñi di jël seen téléphone di jël lu ne yéen xam ngeen Sénégal ci coow li am njaay indi jóob ñu jël bagaas ya fa nekkoon yépp sàcc yóbbu ba léegi ndaw si xamut kan moo ko jël ba kan moo ko jël ba pare ñu jël ay marto di sakaase palaasam di toj emuñ ci benn paabu ñàkk fayda goro sang njaay yëkkati ay béjjéen joxoñ ko ndaw si na ko dina la sànni ngelaw lu bon fii ak trois jours di nga dee weesu na trois jours moom deewul moom léegi sang njaay ñëw na biir palaasam indi fa coow jéem nañu gas teen bi génnee ko te xamut woon ne teenang fa fu nit ñi war a jaar nga dëj dëj tëj ko couverture ko di ko luwee nit quatre-vingt mille francs te teen baa fa bagaasu su un million deux cent yi mu leboon xaritam jënd ko ci biir coow li dem na toj neen palaasam tëj ko li ci gën a garaaw nag mooy ndaw si porte plainte ci let naa njaay bu mbuur lu mel noonu ñu bàyyi leen ñu dem teguñ leen garde à def investigation def ay enquête dañ leen bañu dem ndaw si ñu tooñ di porte plainte mooy dem ak a ñëw ñëlee duñ ñëw parce que sang njaay la am na lu mu graissé parce que sang njaay la am na doole ci réew mi mais kañ la justice di dem bu fekkee ne denn caga dafa bëri ci dëkk bi cagatu bëri mbaraan bari ci dëkk bi ñu am xale bu ndaw bu ubbi solo def ci 4 million lépp xaritam def ci ngir daan dooleem liggéey mu jot ak ñu tariyaax bu tekkiwul dara ci réew mi mu yóbbu ko justice yaakaar ne yoon dina def liggéeyam justice mel ni lu ci tëdd <laughs> mais loolu kañ la lan ngeen bëgg jigéen ñi def quand même finalement lan ngeen bëgg jigéen ñi def mooy ubbi mbarka njaay rek di raay bu yàqoo ñu defaraat am bu bees mais mënta dem lii bakkan mënoon na faa rot léegi su bakkan rotee kan moo nekk who is at fault ku juum kan moo juum sang njaay bu sali ñax-ñaxal lay wax waxuma sang njaay muqaddamu baay bi waxuma kooku kooku sang barhaamu njaay la xutbu zamani fi hazal waxt waxuma kooku kii nag moom góor gi njaay la war a tudd waaye warta tudd sax sang góor gi njaay la war a tudd waaye warta tudd sang différence su ñaari sang yi sax dafa leer xaaral ma wan sang bi nim ñaawee wala sang bi parce que triakat la kii mooy sang sang bii laay wax sang Barhamu Njaay bii moo luwe jigéen palaasam palaas ba mu ko luwee dafa am teen waxut ko ko mu ñëw di defar teen bi sans autorisation jigéen bi jigéen bi di ko wax mu jaay ko réew goroom dugg fa jabaram dugg fa moom mu dugg fa ñu yàq palaas bi am ñu sàcc bagaas bi ñu di ko tëkku na ko den lay sànni ngelaw bu bon fileeg trois jours nga dee kii moom lay wax ma bëgg mu leer pour que ngeen xam ne sang bii lay wax man wetu restaurant su ndur sali ñax-ñaxal foofu la dëkk waaye sang barhaamu njaay bu Baay Ñas kooku doomu aadama jëriñ rek la ci xam waaye du la lor ci wax ak jëf yal na la guddal fanam jamono bii ñu nekk ni man Cheikh Ahmed Cissé dama ne ku bëggul sang Barhama Njaay bëggoo baay li laa wax ba keneen wax leneen man man lii laa wax ba keneen wax leneen léegi nag let naa njaay let naa njaay ñu ngi ñaan nga def sa liggéey ndax gëm nañ ne kilifa nga te yàgg nga ci sa liggéey te sang njaay du yàq sa tur mais du yàq sa palmarès ndaw si jël na usé ndaw si porte usé ndaw si jël na porte na plainte def na lépp mais justice bi moo defagul yoonam yenn saa yi nag justice yu yéex fekk dafa gën te gis nga ista ñëw na nee na sang njaay la sant let naa njaay la sant mu ne ñaari njaay est bokkuñu ista wax na lu garaawa parce que nandite la let naa njaay lieutenant Njaay sang Njaay luy problème bi ah, maa ngi leen di Njaay moom de enquête parce que dossier bi au niveau du procureur la jóge moom mënu si dara da def enquête mais enquête boo xamante da ngay jël papier téye ko téye ko da woo nit yi woo leen su kii su pare nga woo keneen ki nga déglu ki ba pare moo gën photo moo nekk nii. léegi kaay leen ma gën leen a leeralal. bul insist maa ngi live. bisimilah maa ngi di jox secret bu am solo si tuxfatul mutadarain kii mooy Sang Njaay dulkat la rek daxañ mbootum bisimilahi rahmaani koy liggéey nag pour nga am loolu def tuxfatul mutadarain ngay def alhamdulilahi wasalla abada ala lasi kii mooy Sang Njaay wal ali wa sahbihi na waalil waali kii mooy Sang Njaay gis ngeen kii kii nii moo def jëf ju ñaaw ji jabaram dugg ci palaas bi goroom di ko tëkku mu jël fu am teen fu wóorul ci doomi aadama yi luwe ko pare nag buggu ñoo woon sëñ Bàmba ci kaw nii sëriñ Bàmba Mbàkke moom kenn mënu koo bëgg ci sa xol bi te muy dëgg te amoo yërmande ci jaam ñi sëriñ saalihu mbàkke doomi ajaratu faat jaxate bu sell boobule yàlla na yàlla fayal ñu ko dafa waxoon mu ni benn taalibeem daf ma wax ma ne ko yow lan moo la gën a marqué ci sëriñ saaliw mu ne bi mu ko jàngalee alquran bay yar ko ba tarbiya ko ba ubbi ba mu ubbi palaas ñëw seeti sëñ bi sëñ bi daf ko ne li ma lay digal mooy képp ku ñëw ci sa palaas bi na la gënal palaas bi ndax jëmmi doomi aadama moo raw palaas déglu leen waxi sëriñ Saliou ma répété waat dafa diggal taalibe bi na ko képp ku ñëw ci palaas bi na la gënal palaas bi ndax doomu aadama moo gën àddina ak li ci biir doomu aadama moo gën palaas bi kon lii mu ñuy jéema a wat nii ak xeesalam bu maasewul bii jigéen juy daan dooleem jigéen juy daan dooleem yow nga nekku góor war koo dimbale dimbalewuloo ko yàq alalam tëkk ko mu yóbbu la ci yoon ngay neexal ay policier pour yoon bu mu def liggéeyam lu ñaaw la lu bon la na justice def liggéeyam boo gëmee na den laa tooñ mu jox la sa àq boo tooñee jigéen ji ñu jël àq bi delloo ko ko ndax kenn warta ëpp loon yoon doole kon lii nga def nii lii nga def nii ñaaw na ba ci kanamu yàlla te sëriñ tuubaa bindu ko fenn digliwu ko fenn kon balaa ngay joxe secret Cheikh Ahmadou Bamba bi li gëna rafet ci yow mooy nga delloo alalu jàmbur taxawu ko seet noo def ak moom waaye nii nga ko defee rafetul ñaaw na ba kanamu yàlla ñaaw na torop amul dara lu ci rafet kon diggante ñaari sang yi yéen a ngi laajte léegi leer na ana ista soxla naa sa xalaat affaire bi mbuur la xewe mbuur la xewe waa sëñ bi maa ngi lay ziar si sa ngaar baax na li may wan nekk lëndam yi dëgg nga nekk nag caaxaanu de mhm. <laughs> yàlla baax na mais sëñ bi lii doy na war parce que nit mënut xam dafa tàng. waaw moo tax nga def relax nii. nga def relax sol bu baax nii. Mhm. jàkkaarloog nandite yi def benn injustice bu gaaw. waaw yow moom koo yéeg moom bis boo ko wàccee moom ah bu deful lu dul yoon damay ragal ñu génne ko place ba kon léegi naa defar sa liggéey. waaw na def liggéeyam rek parce que xam nga tey diisaluñ dara. dama gëm ne policier gendarme pompier bu ci bon amul mais bu juum am na ak bu saay-saay parce que yéene bi ñu am génnee seen bopp bàyyi seen njaboot pour suñu sécurité ak suñu assurance loolu lañ moo tax du leen di gaaw a dal mais bu defaree liggéeyam mbir rek la ci yam ndax sang njaay yàgg naa tappal yàgg naa dem tirbinaal dañu jël ay këram fay ko ay nit ah oui ah oui kon du bees déedéet li mu ndaw si ah, gën ah kon kon moom am na fu mu wéeru dóorkat la boo xam ne day xeesal gis nga kanam di wootewoo woo sëriñ bàmba waaye sëriñ bàmba ci xol jëf day rafet Mm, nga mun luwee doomu aadama palaas bu teen am te waxu ko foo xam ne ku fa daanu dee trente nangam nag mm-hmm. ah sama xel ñaaw na foofu trop ci teen bi man teen bi sama xel ñaaw waaw sama xel dafa ban xalaat nga ci am yéen ku bugg comme ku bugg participer defal demande bu ma paree ci ista dama leen di jël benn benn sama xel dafa xaw a ñaaw ci teen bi nekk ci digg place bi mm-hmm. waaw sama xel da cee ñaaw daal en plus euh, sama xel ba mu si ñaawee euh, dama gis nga génne photo Sang Ndiaye affaire de maraboutage bi. waa gisoo gisoo goro bi mu ngi jël benn béjjën. béjjën bu xonk bi ma leen ndaw si naan ko dama lay sol ngelaw lu bon. dans trois jours da dee loolu la wax ndaw si mu ne ko dans trois jours da ngay dee. trois jours yi passé na wala passé gut. kon te ndaw saa ngi fii di wax nekk nekk ci jàmm kon kooku xamul dara. ndaw saa ngi ci jàmm bu baax a baax. macha allah kon kooku xamul dara mu war a xam ne yàlla rek moo fi ne mag bu toll nii tamit war na jomm yenn yi surtout ci doomam xale yëpp ñëw nii nekk ci biir kër gi. nga li mu téye mais sëñ bi lii rek. mën a ndaw si doom ji maanaam loxo bu xees bi doomi paa la. Hmm. ok léegi nag mu ngi joxoñ lii ndaw si nga xam ne mooy victime bi na ko dinaa la rey dans trois jours lii moo waroon a rey ndaw si dans trois jours. léegi menace bii moom lan la ci loi wax. ah ok moo ñu jaaxal. Ah, jàpp yóbbu xanaa. koy menacé dama wax. léegi nag paa bi mu ngi tëdd këram. ndaw si nga xam ne mooy jabaru sang njaay aussi. mi ngi tëdd këram yaa ngi dégg. waaw lii ñii leen yàqee palaasu ndaw si parce que ñoom dañu gëm ne ñoo ko moom bis nga teen bi ci digg palaas. waaw mais gis nga teen bi ci digg ah, palaas. sama xel ñaaw na ci sacrifice de. léegi nag hmm. kii mooy doomi paa bi paa bi doon waaj nit ki maanaam paa bi moo jur kii kii jabaru sang njaay la. kii mooy jabaru sangu Ndiaye kii borom bët bi xeesal. waaw kii mooy jabaru sang Ndiaye moog sang yëpp dañuy xeesal. xanaa sang da doon si diw. kii mooy jabaru sëñ bi. ah. léegi gis nga. sëñ bi kooku la tag xoolal sang gis nga kayit yi yëpp ISE moo ko defar ndaw si kayitu leer la am gis nga. teen baa ngi nii xam nga lii doo ko yëg nii leen ko doon tojee pour defar ko léegi buñ ko dajee nag seen bi nii lay mel. non mais non mais non mais sëñ bi lii doy na waar ah. la mel. lii c'est ah man daal kàddu yu ndaw yu ma ci sànni mooy. Mhm. Eh, benn ndaw si ba mu demee ba xam ne fii am na teen ci la waroon jéem a xool nu muy déménager jéem a feneen. d'accord peut-être aussi fii rek la mënoon am te mun na pressé grawul mun nañ ko may loolu mais kii nga xamante ni mooy borom kër gi déjà li nga fi jot a expliqué yëpp ku fi yegg leen rek lay wax mooy du yoon amul droit dugg ci kër gi amul droit dugg ci place jàmbur sans autorisation. Pape wàccal ñëwaat yaa ngi def écho bu garaaw Pape wàccal ñëwaat yaa ngi def écho bu garaaw waaw. sans autorisation ki nga xamante ni tey moom la luwee place bi nga am fitu dugg fa. di toj naan dangay defar tey jii nii bu fa million nekkoon wala benn dara mun na fa bay nekk si xaalis sax moom bu ñëwee ne sama deux millions réer na fi yow la ñuy wax yow mii luwee ko. parce que mhm. yaa dugg fa sans que moom mu wax la ko duggal muy benn tooñ foofu am. ba pare nga ñëw toj foofu noonu teg si yàq ay bagage am kooku kon lan la jublu woon ci xale bu jigéen bi. am na lu mu jublu woon ci xale bu jigéen bi peut-être am bu ko mu bugg ko jaaree fii. xale mhm. jigéen bi dem ci yoon. dem ci leet naa njaay mu demee ci leer naa njaay dem ak ñëw lañu fi nekkee dem ak ñëw dem ak ñëw xale bu jigéen ba tey jii amul dara loo xamante ni lu leer la lu mu teg ci loxom pour que ah nañu waxante dëgg. sànni sax yenn dañuy woo gars yi ah, ñu naan xamuñ heure bi fii leen ko gisee ak fële maanaam pour ñu wuyu sax problème la. waaw léegi loolu déjà loolu bu amee yoon dafa war a dem jëli ji ñooñu indi leen defu ko sang tamit sant Njaay. sànq li ma la waxoon leen na sant Njaay te waa ji yàgg na def loolu ci biir réew moom loolu te dara fekk ko si kon foofu c'est louche yàlla ma yàlla jéggal mais sama xel dalul dara foofu mhm. donc nag réew mi nag bu dee dafa am ba tey ni compal dafay dafay am mhm. bu dee réew mi ba tey compal dafay am ah, war na fee mën a deñ parce que kii nga xamante ni mooy richesse bi ak kii nga xamante ni mooy baadoolo bi defe naa ñoo war a bokk menn atte bi nga xamante dañ war a atte si mm-hmm. nag bu dee lii moo fi am moom ma xam ne ñun pauvre yi wax dëgg neex yàlla sëñ bi dinañ dinañ ñu yàgg a tooñ dinañ yàgg dugal ci kaso bi te dinañ yàgg souffrir ba pare xam nga li gën a doy waar hmm. ndaw si dafa am jëkkëru tubaab jëkkëru tubaabam bëggoon ay investissement ci réew mi bi mu bëggee def investissement ñoom ñu commencé par fii ñu commencé par salon bi waaw mhm. léegi nag bi injustice amee jëkkër ji gis ni justice bi di demee mu ne réew mu mënta protéger seen doomu réew ci biir réew mi rawatina jigéen mhm. moom mii tubaab bu ñëwee investir Sénégal nu muy def. dëgg la. fekk ñu ngi am ñaari kër yoo xam ne dañuy def ab luwe par jour ñu tëj benn kër gi ndaw si delluwaat ci kër gu mag gi dëgg fa ngir problème bi jëkkër ji mere ko. ba léegi su ko wooyee du léegi ñu yàq ménage yu jàmbur noonu. ay fan du wax ak jëkkëram ah. tu t'imagines tu t'imagines loolu. te ay doomu sénégalais doon. lii c'est pas normal peut-être yow yaa def deal pour lekk xaalis yaa def deal pour nangam nangam et fekk du loolu. dëgg la jëkkër ji mën na xalaat loolu bien sûr. jëkkër xalaat. bien sûr mën na xalaat loolu même bu dul woon moom sax ñun sénégalais sax bu doon ñun nit ku ñuul sax mun nañu xalaat loolu. léegi man ay doomu Sénégal nañ lañu mën a liggéeyee foofu ah nga xañ leen liggéey bi déjà léegi ñooñu tey bu ñu génn doon cagatu di jaay seen bopp nga ne lii pourquoi. alors que yow la la war dëgg dëgg dëgg dëgg nga def ko ci biir loi bi defoo ko sëñ bi nañu waxante dëgg les gens sont fatigués en fait mm-hmm. amul kenn kenn koo xamante ni mën nañoo dimbali ci yenn fee yi nii. walaay dëgg la. non lii du soxor rek. lii du mm-hmm. soxor rek. Pape Sidi yow noo gisee mbiri ak loo ci xalaat. sama sëriñ. waaw nu mu demee. maa ngi lay siyaar. sant alhamdulilah ma mm, vraiment damay masawu ndaw si first of all dama koy masawu bu baax parce que xam naa ne metti na mhm. nga am sa alal liggéey ba sonn ñëw pour investir bëgg mu dara xam nga di la ngay dem ay police di dama ko ñëw ko wàcc ci ñoo xam ni vraiment ñoom ñoo la tooñ mhm. mm, première chose bi nga xam ne man moom lay ñaawlu mooy nan ngay luyee nit bërëb mu am teen it's not safety you know that it's mm-hmm. nga luye nit bërëb mu am teen waxoo ko ko avisé wu ko waxoo ko lu ne mënoon na fa am après dañuy ñëw taxaw comme si de rien ndaw si mënoon na fa am problème bu ne parce que dafa yor ay employé yoo xam ne si responsabilité ndaw si lañ ne mm-hmm. teen am fa waxu ko ko nga bëgg euh, problème yi commencé na am léegi nga ñëw nga négocier parce que moom moo tooñ ndaw si. Mhm. waxtaan moom ni ko bërëb bi bëgg naa fee defar lii bu bu ma sañoon ne may ma ma def lii ak lii ak lii mais Sénégal man man je comprends pas Sénégal man to Sénégal is a damn country sorry mais bu fallait ma génn moo boobu noonu mais baadoolo bu xamul liggéey mhm. xamul ni ñu lijjantee xaalis xamul luy ñaq moom mooy fekk ku ñaq sonn ci alalam mu ja koy jaay doole. Mm-hmm. et puis li ñu def ndaw si dëgg mooy dañoo wóolu seen gàllaaj parce <laughs> parce que lii di yabaate la reewande wax dëgg fa neex yàlla ci ay magi jëm muskàllaf ñëw jàkkaarloog nit jaay ko doole yàq alalam tooñ ko ba pare naan ko dinaa la sànni ngelaw di nga dee dans trois jours. what the hell is that loolu mooy lan. yabaate rek. non non man man man ndaw si mi ngi wax mais franchement maa ngi ko yërëm parce que parce que euh, neexul ci xol quoi neexul ci xol neexul ci xol ñu tooñ la lii moo tax kenn bëggul ñëw investir si dëkk parce que ay non bëgguma wax moo bi ay vrai nit ñoo fa ne yoo xam ni zéro cervelle amuñu xel ay dof da ngay bëgg a ñëw ndaw si lu bon bon au moins tëj na bërëb bu bëree ñaar nit jël na ko fa ñuy dàq dépense yóbbu seen mm-hmm. kër mm-hmm. Mm-hmm. kooku buñ ko kooku buñ ko encouragé wul buñ ko encouragé waruñu ko jël di ko yàqal alalam di ko tooñ mais justice Sénégal tamit man ay waay waay waaye man xam nga lan mooy suma problème Pape Sidi naka la jigéen hmm? di amee place di liggéey mhm. comme que li góor mu ne léng jaay ko doole mu dem police jël use fayaat ko hmm. ginnaaw bi ñu ko tooñee ah hmm. jël use fayaat ko te bul fàtte ne place baa ngi tëju nekkul di liggéey ci biir tëj palaasam amul dara mu fay IGE defaat plainte jëlaat avocat ba tey dara mënta avancer. ñu paralyse ko two times. léegi nag naka la war mën a liggéeyee tamit. mais war a liggéey mhm. que est-ce nga wax tamit tamit loolu du du ce que fayul tamit policiers yi. Ah, ba ci ba ci ba ci waaw boo ko xoolee ba ci biir ba ci biir parce que li nga wax tamit loolu moo am parce que def na lépp ñu naka sa xënd ak affaire bi kon am na lu lalu ci kawam. bu leen fayul daal wóolu na mystigam. am na lu lalu ci papa ne lii nii risque parce que parce que yenn yi nit ku am conscience. dëgg amul benn mystique bu amul mystique kon du ko ne trois jours dinaa la dinaa rey te boobu ba tey deewul amul dara xamul dara. xam nga amoon mystique la dul yegg si ci man. xam nga xam nga xam nga. xam nga ñëpp ngay mën ci ñoom dara moom it bamba lii nii lii dafa ñaaw léegi moo tax ñu ci bëri léegi bëgguñu di liggéey xam nga lu ñu bëgg dem di jaay gi seen bopp parce que xamuñu léegi oh, ku tooñ. bamba génne sa mit. xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam mais lii nii rafetul lii rafetul dafa ñaaw dafa salte lii ñu def nii billaay wallaay taalaay moo tax bëgguñu léegi ñu ci bëri léegi bëgguñu liggéey. bëgguñu liggéey moom encouragement quand même dañ koo encouragé. voilà. yaa ngi def demand ba pare nekk fu bari biir. Fall kay ci boor la ne daa ni. Fall nag bëre taalibe la yar zer. <laughs> ba xam <laughs> Fall mi kay daa mel ci dafa est ce que moom nekkul sali ñax-ñaxal ci boîte yi sax moom it. est ne yàgg na dee ci taalibe bi waaye ndeke est ce que xam nga wax nga euh, révélé nga lu graaw mhm, si say parole wax nga lu wax lu am solo. Mhm. Mhm, gis naa loolu wax nga lu am solo sax. parce que gis nga li nga wax noonu mooy que employé ci responsabilité xale bu jigéen bi lañ ne. tey jii nii teen bu amoon benn fissure boo xamante ni dara xew na fa ba xale yi jigéen ñi ñu fay liggéey gaañu fa am fa benn fracture wala dara rek ci xale bu jigéen waaye parce que dañ naan ko yow lañ fi loolu. nee na police bi taalibe sang Njaay la. bu boobaa ci bu responsable itam lay nekk de parce que moom moo ko fa jël moom mooy patron lu fa ko lu ko métti lool moom la ñuy moom mooy am problème. te day doon benn problème parce que responsable la dégg nga li sëñ bi wax sëñ Ahmed Cissé dégg nga lu wax. nee na. Mhm, mhm. Eh, nee na eh, kii bi policier bi. taalibe Samba ah, Ndiaye na daal parce que mënoo mënoo ñu tooñ la mënoo ñu tooñ la. ci jigéen. ak jigéen ni mu mhm. ñàkkee doole. yow nga nekk homme de loi. nga xam ni jigéen fu bëtam xonkee dafa war dem ci justice. justice mooy ko doole fekkal ko. nga dem ñu yàq sa alal ngay fayaat foofu xam nga ndaw si day huissier da fay. Mm-hmm. yooyu yëpp da ngay fay sax ñëw ngay dem ak wàcc dem ñëw léegi ñu dimbali nga ñu la doole ndax lan. su am xam na waay gis naa ko wala mm-hmm. Ajami na def Ajami. maa ngi fi salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum sëriñ bi maa ngi ziar xam naa ne maa fi gën a nekk xale nag mais live bi damay lii rek romb ko affaire bi metti na ma trop trop trop. ok kii jigéen la mais liñ ko def c'est très très très très dur mais fa metti ba pare man li ma gën a jaaxal mooy Sénégal léegi xaw ma waaye dafa mel ni nit ñi seen xol yi xaw ma lu si nekk man dama xamul nit nanga ko mën a louer place boo xam ne dafa am teen ci biir teen. Mhm. yow xamoo d'un xamoo d'un jour à un autre foofu mën na màbb kenn xamul. tey jii tey mhm. moom bu toogoon di liggéey ak ay employé am ba si kanam foofu màbb ban ban scandale la ñuy indi foofu est-ce que nit ñi tamit ñu ngi ñu ngi bàyyi seen xeen ci li ñuy def est-ce que nit yi rag ragalatuñu yàlla en fait man xaw ma lii c'est de la pure méchanceté lii est-ce que doomu aadama war na xalaatee nii ak moromu moromu nitam en fait mm-hmm. xoolal fii ni mel teen en plus de ça nit ki yaa ngi ko foo xamante nii amut amut amut sécurité non seulement mi ngi am teen mënoon na fa loru nga parewaat di ko xoqatal di ko xoñañal yàqaat ay bagage ak investissement nu mu mel. ba pare sàcc ay greffage am ñu ay greffage am ah. affaire bi man man daal métti na ma métti na ma ba si kanam yàlla jigéen la nag suñu moromu jigéen la ñu ngi koy mastaw bu baax. cheikh bi cheikh mën naa mën ngeen baal ma laaj benn benn sant yàlla bu baax. Mm-hmm. benn question nag laa bëggoon laaj. ayca Pape waaw léegi ndaw si moom nan la mën a def ba justice dimbali ko ba ba ba nga xam ni tooñ bi ñu ko tooñ nii ndaw si am gain de cause xam nga ñu fay ko ay bagage mu am ndam daal si lii parce que vraiment tooñ nañ ko lan mooy solution bi loolu rek laa bëggoon laaj. solution bi mooy justice xam ne askan waa leen teg gët. si surtout loolu. lépp luñ ci def lu jaar yoon neen xam ne dëgg. doxul ci seen boor waaye relation ak bralo mooy dox te loolu leen bañ ba génnee fi Macky Sall mais du ñàkk liggéey de liggéey na de mais justice bi demutoon yoon moo ñu naqari lii dañ ko doon nëbb nëbbal ci suuf léegi mhm. nag jënd na ci kaw dinañ ci teg gët ba xam let naa njaay ak ñeneen ña ca des nekk ci wàll yoon ci nguur dañuy defal dëgg wala dañuy faral kenn mais yëpp yëpp li nekk yoon moom jeex na tàkk ma lii de bu jógee di si dégg yeneen problème parce que ku am fitu def lii c'est parce que yàgg naa tooñ ay nit muy jàll. mais sëñ bi wax na ko. waaw dafa hmm, mhm. la. Njaay moom dafa am si lu yaakaar rek loolu kese la mais lii bu doon yoon ak yoon kese la. wallahi soxna soosu ak papaam jooju waruñu sax fanaan seen kër. bu doon yoon kese la. mais dama xamul nan nga mën a ñëwee palaasu nit. asalaamaaleykum maa ngi nuyu suñu ay bagages am a dem war ba ñibbi tëdd. topp kaa waaw. Ah, euh, man man xam bëgg a wax mooy dëkk bi xam nga lu fi changé mais justice moom changé wu ko gouvernement bu bees bi li ñu changé justice bokku ji ko ci ba léegi daan am ci jamonoy Macky Sall. dara changé wu waaw parce que xam nga yow xam nga lan ngay comprendre bu fekkee ne ñi nekk ci kaw ñu nekk ñu mag ñi bu fekkee ne ñi mag ñi nekk ci kaw fekkee ñi mag ñi nekk ci kaw ñoom leen changé te ñi ndaw ñi ci suuf changé guñ leen tamit jikko yu ñu yoroon moom lañ yor ba tey il faut que yii di am ñuy soog di distingué ñi nga xamante ni ñooy liggéey ak ñi nekk ci dëgg ak ñu nekkul ci dëgg xam nga mënuñu jékki-jékki rek yéeg changé lépp loolu mënut a nekk. waaw xaaral dañuy waxtaan rek man li ma bëgg a wax mooy dëkk bi changement bi justice bokk ku ci ku ne ak ngay seetlu mooy justice bokk fi jaay doole am ba dëkk ci dëkk bi moom ñëpp xam na du fi mos a jóg nag ëpp ñuy jaay doole ci dëkk bi ay jigéen lañ ay jigéen suñu jigéen ñi sonn nañ ñoom la ñuy lekk seen xaalis ñoom la ñuy jaay doole ñoom la ñuy def triant bu dul jeex. Mm-hmm. tey maa ngi doon wax benn benn benn live bu ma doon wax tey bu xam ne nii mooy rakk Modou Diagne Fada noonu la def tamit ay jigéen lekk seeni i bi ci nangu cee wax. Mm-hmm. bu ñu demee porte plainte dañ fu ne dëkk bi da ngay dem da ngay dem ci yoon te du am recours du mujj fenn da ngay def say plainte gars yi branloo la am boo demee dañuy téeb dossier yi du jëm kaw. femme bi nag femme bi nag il paraît que nee na sësul jaarale ci yoon nag mooy justice justice mooy njëkk ci dëkk. léegi nag femme bi léegi femme bi dafa xam ne moom kenn sësul ci kenn loolu moo tax mais boo deful nànk def nank day perte de. bu bu ñu defulee nang. billaay allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëriñ jaar naa la. delloo jaar waay. waaye di la ndokkale ci sunu umpaañ sunu sëriñ sunu sang bu jigéen bi. <laughs> non lii comme guerre waaw ziar naa leen donc man li ma ci wax rek du bari euh, d'ailleurs sax Esther wax na ko wax na lu ci ëpp euh, catastrophe rek weesuwul teen ci lieu boo xamante ni c'est un lieu de travail. Mm-hmm. parce que ay être humain ñoom ñoo fa nekk ay doomu aadama ñoom ñoo fa nekk. à tout moment teen bu mën na màbb te bu màbbee bu ñu suuxee un profond de 33 mètres balaa nit ñee ñoo ñoo ñu sànku yomal xiyaam lañ leen lañ leen di fekk waaye nekk nekk fa ay la ñuy gis. bilaay dëgg la ñaareel ba ñaareel ba. Euh, moom sang Ndiaye xaw ma puub Ndiaye xaw ma day Ndiaye maa ngi jégalu réew ak tuppe ak audace ak. yabaat xamul dara ka ak sa jabar ak ak sa jabar ju xeesal ma may la ma ma ñëw may la ma ma ñëw ak sa jabar ju timpitam bu déggoo déglu rek dina neex ànd ak sa mhm. jabar ju timpitampa waaw nga ñëw toog di indi ay ŋàppateeg ay ngolooloo di wax wax wax yu déplacé ay naan boo ŋaaŋee dama lay fàtt ay ñetti fan soo mënoon doo gas teen ci biir kër da ngay wër ci kër taalibe yi kër ndongo yi nga xamante ne nii dañuy xëy di yalwaani nga def fa ay teen mais looyu teen bëgg lu yomb def ko ci sa biir kër pour di mën a di ci mën a naan di ci mën a rooseeg di ci mën a def ay bagage xam nga lan la dëkk bi du question justice bi moom moo moom moo moom moo tega tembe indi ñoo mhm. indiscipliné mhm. dafa am ay sénégalais yu indiscipliné dafa am ay sénégalais yu ñime ak dafa am ay sénégalais yoo xamante ne xamuñu fu ñu teg seen tànk te gis nga na ma yàlla jéggal ci ñu ma ko sañ a wax da cee bëri ay mm-hmm. taalibe yoo xamante ne dañuy mbubboo yoon wi di mbubboo mm-hmm. maam borom tubaa te duñu ci lenn foo leen fekk ñu ngi naan xas da yeeg nangam ak nangam sol nga garambu bu darambu bu garambu bu xas sawta tilim sëqal sa bopp sëqal sa njëg di rek ay taalibe te li ngay wax dara lu ci dëgg gëmoo ci li ngay wax dara li ci gën a yéeme mooy léegi biñ ci boole sax mooy waxu man li ñu def ndaw si nag métti gi métti xam nga léegi bu lañ ci boole léegi dañ cee boole nag di dañuy wut dañuy defar nit ñi France dafay woote pour liggéey euh, ku ku ku am 4 millions boo ñëwee ñu wutal la visa siège baa nga Touba sëñ bi dinaa la envoyé photo bu ndax démb lañ ma ko yónnee xam nga Sénégal dafa métti lépp lépp lépp lépp kenn mënu koo wax waaye en suma doo mooy mooy mooy paa bi ak ak sang njaay mi karamam gi mu mel ni bëy nañ leen jëlee ñu sax war leen sax bàyyi ñu fanaan seen biir kër loolu laa amoon ci may wax maa ngi jégoon parce que xol laay waxe sëñ bi ñu lay delloo ziar bu baax ñu ziar bu baax. Euh, euh, Baron. naam. est-ce que xam nga ne euh, xam nga sang njaay jabaram ji xam nga day xanaa. waaw gisoo sang njaay xanaa ñoo léegi léegi sang njaay mu daan daan sàcc ci diwam bi di di ci diw. sàccul ci diw bi daa jënd diw di ko diwoo. ak saabu day diw dañuy diw ba maanaam dafa sàcc jàpp seen bopp ay mbàkke mbàkke yu ndaw te duñu mbàkke du ñu si duñu dara ay simple ndongo daar lañu ay ta ñuy jaar gi du ñu ndongo daar jaar gi amuñu taalibe amuñu imaan amuñu taalibe amuñu imaan dañoo yebaate na Sénégalais yi jëlee seen bopp yi fi amee ndaw si nag daa amul ay mbokk bu ay mbokk danañ ko fekk nokk ko mu xool benn place si këram bi di mel ni génn jaay man genre rek laa bañ na ma yàlla dégg man genre ñoo ma soof man genre rek ñoo ma soof muy sëqal bopp nii dama nga wattu ji waay yaw dama nga wattu ji waaw ma ba sang jaay duñu kii sol ngelaw. waaye kii kii kii kan lay sol ngelaw. maa ngi sol ngelaw kii su ma yoroon kii su ma yoroon boppam du jël teen di ko di ko masqué di ko gas ci biir. vraiment vraiment loolu dafa ñaaw quoi. ay yóbbu ko ci ay tool di ciy dundee dafa ñaaw mais topp ci jigéen ñi di leen nappaatu ñàkk fayda ba bëgg a dee ah dafa ñaaw moo nekk ci moom kanamam gi di mel ni kanamu tey kii di mel ni kii di mel ni mbët kii kii lan moo nekk kii ban iman moo nekk ci moom il faut arrêter ay li ay connerie la quoi nañu arrêté seen yi ñu mm-hmm. nekkee nañu bàyyi Sénégal yi dañuy jàpp otage ah affaire réewante affaire indiscipline di def nit ñi leen neex c'est pas normal quoi comme il faut arrêter c'est des bêtises waay sacrifice dugg na de sacrifice dugg na foofu de teen boobu sama xel dalul de. ñu dañoo yabaate. nañ man teen bi waaw lan moo tax ñu jékki-jékki rek dem foofu rek bëgg ko toj toj bëgg ko toj brusquement pour ñoom génn ci lan wala ñu def ci lan. moom laa lay wax nii moo tax may la sacrifice dugg na. parce que man waaw doy na waa de lan moo tax rek ñu bëgg a dem dugg ci teen bi rek. brusquement noonu. Sidi na nga def maa ngi sant bu baax a baax. maa ngi nuyu ñu ma fekk. nga ci amoon. waaw man dama dëkk Mbour wetu ñaax-ñaxal gii ngeen di wax nii donc kër gi xam naa foofu noonu bu baax xam naa lieu bi tamit quoi sànq rek maa ngi romb foofu mais xaw ma woon ni yooyu yëpp xew na ci tamit waaw mais sànq moo ko gisee tamit dama am yërmande gu foora a foor a ci yaay booy bi lu mu wax tamit ma xam ne loolu métti na quoi si jigéen mhm. waaw bu fekkee noonu la demee tamit doy na waar lool lool lool mais wax na gars yi nañ ko jàppale bu baax waaw comme ka jigéen la ñu jàppale ko bu baax métti na lool. Mhm. waaw loolu daal la quoi maa ngi seetaan laaj boobu léegi sama xool tooy ci lool nag parce que dafa métti lool si jigéen buy góorgóorlu xam nga ak yooyu noonu yëpp ak lu mu wax ni moom la ci perte lépp waaw dafa doy waar tor lool waay waaw da lu ko waay mën a jàppalee rek Cheikh bi yow tamit li ngay def rafetlu naa ko lool. Mhm. waaw parce que am nit amul dara lu dul bu bët xonk bu bëtam mu xool fu mu koy jooyee. Mm-hmm. waaw te yow bu gars yi bu ndeysaan bu yaay booy seen xool seen bët bu xonqee bu ñëwee nga jàpp ci taxaw ci tamit franchement waaw dañ la ciy sant bu baax daal. Mm-hmm. waaw loolu daal laa amoon lu may wax donc na leen gars yi na ko gars yi jàppale bu baax yaay booy bu baax a baax a baax a baax incha allah. man tamit incha allah lu ma ci mën danaa ko ci def daal. borom du ko man Oulimata ñëwal na nga def. salaamaaleykum. sëriñ si na nga def maa ngi lay en tout cas man daal dama yéeg rek pour ne la man kontaan naa trop. ni nga eh. jàppale sama rakk yi sama sœur yi wax dëgg yàlla sama xol sedd na guy parce que yow moom yaay suñu porte parole. parce que Sénégal dañu jël jigéen yi def leen moom mel ni serpillière kenn respecté wul jigéen ñëpp a fàtte ne jigéen mooy mooy ëmb mooy indi nit. ñëpp dañ ko fàtte jigéen ñi def leen serpillère di leen maltraité di def lu leen neex te yow moom yaay suñu défenseur wax dëgg yàlla yow yaa ñuy taxawal yaay suñu porte parole loolu rek moo tax ma yéeg pour ne la merci beaucoup sama xol moom sedd na guy ni glace ci yow. merci Oulimata <laughs> Ouli rek laay toog. waaw mais bi dafa bëgg a wax ne ñun góor duñ indi dara duñ indi doom. <laughs> allo. waaw maa ngi nii. bisimilah Fall. sëñ bi nanga def. yaa ngi ci jàmm. yaa mm-hmm. man de Fall mi yàlla Falle Fall njëge yaram dama dugg tey. Mm-hmm. pour man dégg naa li ngeen di wax waaye tey mooy first time ma dugg TikTok live. xawma sax tiktok nuñ koy defee su ma rakkaa si boole parce que account laa daan use pour di la déglu yow sëñ bi waaye dama ko ne ibil ma ak compte dama fay lu bari pour mun a nekk si live bi parce que tey laa ibi tiktok waaye li nga wax foog naa soo gisee suma tiktok bi di nga gis ne musuma wax ak kenn parce que foog naa zéro moo nekk si suma live bi waaye li ngay wax dafa am solo man Sénégambien la suma yaay mooy Gambien suma papa Sénégambien mm-hmm. waaye nekkuma si ñaari dëkk yooyu yëpp fi may wax ak yéen mais man xaw ma li ngeen di wax intéressé na ma waaye intéressé wu ma bu baax parce que li nga mus di wax sëñ bi yes baba li nga mus di wax sëñ bi man loolu lay foofu lay basé wu mooy ni nga taxaw jigéen ñi moo tax ma dugal tey si sa li ma jot foor mooy ne jigéen ñi ngay taxaw ba tey mhm. live bi tey pour loolu la mais pour man en tant que sénégambien suma yaay jógee Gambie suma ba jógee Sénégambie Sénégal man ma nekka fi ma nekka waaye pour man mhm. Cheikh Ahmed Cissé li nga taxawu jigéeni Gambie ak Sénégal ndam rek nga see gis man dama dugg rek pour mhm. ñaanal la comme ni ma ko waxee yàgg naa di laa topp si suma compte Raka waaye ñemewu ma ngi si diaspora bi maa ngi si maa ngi si Europe bi waaye li ma liggéey mayu ma pour ma wane suma kanam waaye mm. dinaa la seen message si suuf te di nga xam may kant parce que jëflante nga ki suma benn raka bu nekk Gambie bu yàgg bu taranga boo xam ne daf ma ko wax mu toog jooy ne Seex Ahmed moo ma defal lii ma ne ko mooy kii kaa ñi si TikTok bi mu ne ko ni ko nit ñi di gisee ak ni niñ ko waxee du benn de mhm. mu wan ma évidence wan ma pour te man loolu laa gëm mu wan ma ni nga mhm. seex ak moom su ma la seenee message di nga xam Seex Ahmed kan lay man mhm. duguma fi pour pour jàppale kenn wala pour wax si turu kenn waaye dama dama dugga fi pour Seex Ahmed Ceesay mi tax ma dugga TikTok man aw ma social media kenn du ma gis si internet bi parce que mun naa ko waaye mu ñemew ma ko ngir Gambien yi ak Sénégalais yi ni ñuy sàggante si internet bi pour man munuma ko mhm. waa see Ameth moo ma fi indi tey dama fay lu bari pour dugga parce que tey la ibi compte te yéen mi xam TikTok bu baax xam ngeen ne mun loo am compte tey wax tey si live kon am na fu bari fu ma jaar pour signe bi ko ñaanal yan na jàmmam yàggaan li moo taxawoo jigéen ñi ñu bari si ñun man mi wax tey am na lu bari lu ma dugga si gó dugga dunda si góori Gambien ñetti góor ñemew ma ko wax si ron waaye dinaa ko wax ak moom sëñ bi soo di ko ñaanal yal na jàmmam yàgga fi mu taxaw foofu la jigéeni Gambien jigéeni africain ku leen ku leen jàppale yàlla daf laa jàppale te sëñ bi mu ngi ekkati suñ baat foo xam ne ñun suñ baat munuñ fa munuñ ko fa eggal incha allah parce que ñun suñ culture african culture african xaw ma naka lañ ko dee waaye tradition woon ñu ne jigéen dafa war a muñ sooy dee si sëy sax dañ mm-hmm. ko war muñ waaye tey Cheikh mm-hmm. Amad ibi na bot ñoo xam ne sax nu mënuñoo wax ak moom waaye ibi na seen bot mm-hmm. ñoo xam ne mu xamuñ social média waaye ñu ngi koo seetaan di ko déglu te ibi na seen bot bañ xam àddina jigéen ñooy suñ yaay jigéen mooy suñ mooy yaayi doomi jigéen dañ leen war a sargal te Cheikh Amad bokk na si ñoo xam ne man suma boppa yaroo Europe màggee fi xam lépp pour man dama mhm. waroon a follow culture boobu waaye tey Cheikh Omar ibbi na bëti ñëpp ñu xam ne foo munti di nekk te nga nekk jigéen am na loo xam ne yaa moom te góor daf la ko war a jox. Mhm. te jàngal nañu ko. man day wax dëggaan yàlla. ak fi ma toog di wax ak yéen. faal njaga yaaram. Mhm. bu dee waxuma fen Cheikh Omar ibbi na suma bët boo xam ne musuma ko woon a xalaat si ko suuf. kon Ceesay Ngaari yal na si jàmm yàgga fi nga nga egg fa yàlla eggal loo loo yootu di ko jot yal na la ko yàlla eggal li nga bëgg yaa ko xam si sa xol la ko yàlla defal waaye yal na la yàlla fay sa xol yaa ngi ibbi boti nit ñi ñi laa xas di la xuxatal ñoom ñëpp dañ nekk góor ñi nga xam ne dañ nekk foo xam ne dañ bugg a toroxal jigéen moo tax sa baat duñ ko déglu waaw li nga def continué ko mu ngoog loo munti di def si kaw suuf dina am koo xam ne dina ne waa kii ne ne déet ñëpp mënuñoo bëgg yal na sa jàmm yàgga fi nga teg sa mm-hmm. tànk foofu la continuer ko parce que ibi nga bët ñoo ah, xam ne ñu dëkk Europe maagee fi juddoo fi sax mm-hmm. waroon na am mentalité tubaab dañ leen dañ ñu jaxase ba nga xam ne fi mu nekk ni ñun dañ foogoon ne li ñu jàngal mooy li war waaye yow bi nga ñëwee xam nañ beneen yoon bi man ak mm-hmm. suma moroom ibi nga suñuy bët ibi nga suñu xel ba ñu ngi xalaat loo xam ne mosuñu ko foogoon woon kon yan na mhm. sa jàmm yàgga si tengaari dinaa la seen masay ci suuf bi nga xam may kan parce que teral nga suma raka barki démba teral nga ko mu ngi gàmbi nga teral ko ba kool ma mu jooy waaye leena laa bëgg a ñaax gambi eh, jigéeni afrique du yan du sénégal waaye afrique sey neex na mhm. sey métti na mhm. sey tar na waaye nga dunda ak sa njabooti moo gën nga dee sa njabooti naan suma yaay dem na si sëy bu la fa deewu na ree fekk faagal sa bagaas yi yàlla moo tudda sëy yàlla moo tax sëy mm-hmm. kenn warul tata wala àddina bi wala mbokk yi wala famille bi wala waa koñ bi lu ñuy wax da nga toog si sëy boobu pour torox pour dee gis na mm-hmm. africain jigéen yu bari ñuy dee si sëy mm-hmm. because of seen njaboot seen njaboot lu leen gënal seen yaay dunda mu gis leen ñu ngee dunda moo leen gënal ñu dee soo nekkee ne yaa ngee torox si sëy yaa ngee sona si sëy ñu ngi laa dóor ñu ngi laa mm-hmm. bungu xatal demal pour sa njaboot mm-hmm. nga dunda jërëjëf Fall Ndiaga kontaan naa dee sa njaboot yi dee kontaan naa de seex bi waaye dinaa la jël si roon nga xam man naa kan xam nga ma bu baax parce que tedda nga suma raka waaye nekkuma social media parce que ma def tur boobu waaye man may Fall Ndiaga yaaram sa taalibe bi nekk Norvège di la jërëjëf yow dama ragal ne tiida baaji nga bokka ni amu Serigne Fall loo def yow tos tos bàyyi nga maa ngi ci jàmm noo def. Mia da nga am jëkkër tubaab bàyyi wala nit ñi. tos maa bàyyi lan lu wax ma yow nag kenn ku nekk la jël yoonu boppam tos. tos gis nga boo ko jotee wax dafa jooy ñu laaj ko lu muy jooy ñu ne dañ ma wax kenn ku nekk bi wax ci tiktok na ma maa la gis dans la vraie foofu maa ñëw sa kër di ñëw Sénégal loué appartement appartement ba ba ma neexuma ma ñëw wax na ko nga ne ma Mia bàyyi appartement boobu foofu ma ñëw sa kër nekk fa ak yow durant mes vacances baax toos ba day dem dox ba ñëw ñëw toos tegal dibi bu mu ci Iba toos ñu tegal ma ko ma naan ko toos lii toos laajuma dërëm laajuma un franc man ma xam toos sa xam si siis bi ne ngeen di wax parce que dama ko xam man maa koy woowee toos dans la vraie vie parce que dafa mu njëkk dafa laa loolu dafa nekk loo xamante ne bii lu naturel la man parce que woowee toos li xew ci tuto bi yëpp da koy gis ñu dañ fekk démb ak dëkk bi fekk mais gis nga dañuy wax pense kenn ku nekk mën na ko waxal lu nekk mais xol bu rafet la am bu saat ku mën a jàppale doomu aadama soo si koy gis ci tiktok bi yëpp muy wax donc su su wax ne Sow hébergé naa am na ko am écho de ok tëj leen seen micro donc toos yaakaar naa ne li xel ci ci tiktok bi am na loo xam ne fekk nañ ko ci yow xam nga man xam naa yow xam nga man xam naa am na fu ñuy ànd am na fu ñuy dem am na doxi am na loo xam ne defoon na fi parce que nekk génn di wax toos bisum génn wax di jàppale ki nga xam ne kii moom la sekkal lool toos taxaw di def ay vidéo taxaw di wax di ko jàppale naan ko lii ak lii ak lii ak lii may gis lépp lépp li xew ci tëtt bi ma ne nongu nongaaral ku taxaw taay naan sëriñ naan te sëriñ lii sëriñ laa wax ci moom man maa mën wax ci moom man maa man mi ko fekk këram fekk appartement am maa fekkee la suwaa la suwaanaa mi ngi nii donc dama daan woo la suwaanaa appel mi ngi di ma dégg maa fekkee de barke Sëriñ Tuubaa yaa fekkee donc ma fekk la sa kër yaatal ma di jox ma lekk di ma jox ma naan sa kër macha allah tabaraka ku la fekk respecté la. toos damay ñëw bu ma ñëwee caabi dama koy bàyyi suuf ki bu ma ñëwee laaj gardien mënu ma caabi baa ngi ne ma fekk ay yeneen nit li am yeneen yu fa xew yoo xamante ne bii peut-être man ak yow la ak ñooñu noonu toos toos tiktok bi dafa yëngu kenn ku nekk toog mais bu ñuy wax baax rek pour ñuy wax ñi xam toos ñi xam Ahmed Cissé man maa mën wax ci moom man ni ko fekk Sénégal man mi ko dalal këram man mi mu teeru teral ma man maa mën a wax ci moom daa kacapan rek des fois bu ma ko wooyee du ma wuyu nag de mu may jaay jikko jikkoom jaay mais bu wax jotee dañuy wax damay doon romb laay ñu fa yéen ñu la fa yàq ketebeñ pourtant ñooy yàq ketebeñ man ak yow ak ñoo ñoo doon toog tos bu dee yàq nit rek ñoo gën a jekk ci yàq nit bu génne preuve rek ñoo gën a jekk ci génne preuve ah loolu suñuy affaire dama lay toog ba mu yàgg malgré ka noo mënti dama lay fan parce que dangaa mën a wax danga xam fi ngay jaar ni nga xam li nga xamante ne bii mooy raisonnable gis nga bu dee wax bu dee dëgg la boo ko dégloo dangay xam li ñuy wax ni dëgg la nga toog déglu toog sax ma daan toog may wax ak nit ñi ñuy werante benn affaire muy xam ne li may wax ni dëgg la toog di toog di déglu di toog di déglu xam ne li may wax ni dëgg la mais dafay toog ba bañ ko tuutal nitam donc dafa mën mën nitam tellement que boo toogee di wax ci nitam day xam li ngay wax dëgg la mais day bañ tuutal nitam naan la ah ah Mia ah, ah Mia ah dina toog di la wax dina reetaan mais parce que la yaakaar rek dalaa xamul man maa mën a wax ci yow man mi jàkkaar la yow face à face dëkk yow ñëw nga xajal ma yaatal ma donc wax di may dugg ci laay nag wax dëgg yàlla bëriwul di may dugg ci laay bëriwul léegi ku bëgg a xam Ahmed Cissé nii ñu wax naa du sénégalais du lii ak du laa ak am na ñoo xam ne taxawu na leen fu nekk nag fu nekk fu mais am na yoo xam ne jarul wax ñun donc doxalal ñu waruñu bës waruñu leneen ak leneen buñ nee wax rek kenn ku nekk na laaj fan la wax jotee ñu wax ko mais yow la xamul dama la laaj man man mi la fekk man mi la fekk Sénégal yow man mi dëkk ak yow appartement tu vois donc loolu moo tax bu ma rombee ay live ñu taxaw naan Ahmed Cissé dafa def lii kaay leen ma wax leen ci ànd laa buri boobu ñuy wax jox na jox na ma fa ay produit ma ñëw France mu ne miyaa demal jaay bi ma ñëw jaay affaire yi ba pare yor xaalis ne ko tons xaalis fa laa la ko dugal mu ne miyaa may naa la barki yonent bi mu ne miyaa ma ma mu ne ma may naa la ko ah, tons mu barki yonent bi may naa la ko yaakaar naa ne ku lay may ay ay tu vois donc ku naan ay 5 millions ay dafay ket lii tons lu mu am bokk na ko nit ñi soxlawul dara kenn man mi dem Sénégal toog jóge France tons nekk Sénégal ma ñëw tons di dem commandé di bi dama ñëw na ma ñëw ma naan ma mais ah ma ma naan ma ci ko tons gis nga li ngay commandé tons lii tons laa barke yonent sama dërëm demu ci toog naa këram ba génn ñëw ma fayal courant ñëw ma fayal wifi ñëw ma fayal leneen ak leneen donc ku la yàq dalaa xamul am na ñoo xamante ne bi ñu amulee fu ñu dëkk yaa leen jël yaa leen fat lañ daan di fa fat ay nit lu xew la xewee am na affaire yu bari yoo xam ne dafa xew sa kër la xewee donc xamul na ma laaj am déet donc voilà tons maa ngi waat la laa amoon pour wax ko maa ngi jéggalu ñëpp Aminata Ba. Aminata Ba réseau bi dafa daw baaxul. réseau bi baaxul dafa daw. sëñ bi defe naa ne que ñi fiy wax ñëpp ay yiw rek lañ fi sedda seedal la li nga xamante ni tey jii nii loolu lañ xam loolu lañ gis. sa baax. Hmm? sëñ Ahmad. waaw waaw maa ngi lay ziar bu baax. delloo ziar bu baax a baax. waaw man chaque jour presque dama lay topp say live. Uh-huh. ma gis ni li ngay def moom am na solo lool macha allah yàlla moo am sa fay te yàlla la yàlla fay. amiin. di wu ndaw soosu yi liñ ko def dëgg yàlla ndax képp kuy jigéen rek maanaam mbir mi metti na la. waaw man moom waa ji moom li ma gën a metti ci moom nag moom mooy maam sëñ <laughs> sëñ bi mi tuddee sëñ da la su ma waay mel nga mel la sa melakaanu bopp te bañ leen a tuddoo mm-hmm. te muy dëgg nañ leen fee jaaree xeeb baa nga xeeb seeni waa kër mm-hmm. man dama naan su ma demee ba mel noo xamante ni maanaam sëñ Tuubaa bëgg ko wala ma bokk ci geneen këru diina ma xam ne ma fa ma bokk maanaam sëñ boobu bëggul bëggut maanaam ab taalibe mel neen su ma melee su ma dem maanaam su ma demee ba mel jikko yoo xamante ni kii la jaral na ma sax maanaam ma bañ a fësal sama bopp ndax tey jii ku xamul waa kër googe wala ëttu diina boobu bu la gisee sa jikko mën na laa attee mën naa attee maanaam wa maanaam waa waa kër googe maanaam jikko yi sa jikko yow te fekk ni yoo kéemaan la mhm. moo tax daal su ma nu waay mel ak moom man di doon nga bañ a tuddoo kilifa yi wala ngay bañ a mhm. tuddoo si benn sëriñ te mel sa melakaanu bopp waaw ngi noonu waa man boo ko gisee kanamam googu di mel ni ñooy <laughs> lañu wax am nit moom bu triaayoo boo nee jàkk kanam gi danga koy xam nit ku jóg boo ne jàkk kanam gi danga koy xam waaye nit ku triyaayit boo ne jàkk kanam danga koy xam maam ndax jëf day day feeñ ci cër maam tey ki nga xam day nekk di jaam yàlla nekk sax ci yàlla loolu day kenn ci cëram boo ne ko jàkk danga koy xam da nga xam ne kii ku jub ku jub la ku dëng it noonu boo ne ko danga koy xam ndax yàlla moom ku nekk na ngay jëfee rek moom la maam moom lay wane sa sa visage moom lay wane sa sa ci sa jëm jërëjëf madame waaw mi ngi dëgg yàlla yàlla yàlla mu am sa fay te yàlla na la yàlla fay li ngay def am na solo lool maanaam jigéen ñi ngi fi nekkal macha allah yàlla na la yàlla fay ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aha Saalum bu mag la ndeysaan góor day dëgër xale day dëggal way wi xale yee ko moom day dëggal xale yee ko moom day dëggal borom andala buri andala buri andala buri yee waru tiit waru ragal waaw waaw góor waru tiit loolu dañ dafa am ñoo xam ne den may bëgg a jot suma numéro téléphone dinaa leen ko jox directement ku ne na téye fi nga ko war a bindee ku wootee man ngay jot Lisa a nga jagin du may gaaw a tontu message te du may gaaw a jël appel te boo insisté ma bloqué la ndànk rek mais ba ma bëggee jot wax ma fulla salaamaaleykum Cheikh Ahmed man la diw lii laa la soxla préciser dama lay tontu gaaw gaaw <laughs> mais ba fa nekkee àndoo yow la Cheikh Ahmed bu dee yow la ma tontu la wala dama laa soxla wala na ngeen def guddi gi lu ma lay tontu yow kan. <laughs> fu muy teg bi borom borom am na laa buri yaay borom am na laa buri yaay borom am na laa buri mu ci toor xam-xam bi dañ ci toor xam-xam bi dañ ci toor xam-xam bi dañ ci toor suma numéro téléphone plus 221 numéro Sénégal la 78 471 57 01 78 471 57 01 in English plus 221 it's a Senegalese number 78 471 5701 that's my number dégg dégg xam-xam bi dañ ci too dégg dégg xam-xam boo doon koy doyee dégg nga c'est ça mbës sa sa niveau taalibe mu ngi wàcc mbës gi jagit Mia Saliou doo ma baal bépp ma ma woo la jël rëj jëf jëf gi dëgg dëgg suma numéro 78 la 471 57 01 lu ngeen bëgg mu waxaate nag ñu ngi koy bind noonu. <laughs> Cheikh Ahmed Cissé. géej Borom Gambia. Cheikh Borom Nigéria. Cheikh Borom Angleterre. Cheikh Borom Ghana. yaa dem Gambia. jaloore. jaar ba Nigéria. dafa ndeysaan di dërë tënd dënd dëng dëng dëng di dërë tënd dënd dëng dëng dëng di dërë tënd dënd dëng English Seynabou you don't need to request the number in English roll down to the comments Pape Samba Diop fàttewuma la musuma laa fàtte yàlla xam na loolu Diop ni ma bëggee duma la fàtte di xuloo ngir man di defante ngir man sopp ma te yàlla tax bu ma taalee nga ñëw bu ma la fàttee du ma gor teel sa message ak appel rek ba ma pare ci yow hmm? nga xam ne ki nga bëgg jar naa bëgg Mia Saliou gis naa appel bi gis naa appel bi Mia Saliou Pape Samba Diop bu ma mës a fàttali sa bopp bu ko mës a defati noppi rek toog seetaan ma <laughs> bi daanoo nga xam ne mbër daanoo gidelim. Neyse. Borom maam yi lan. Maag Jabel Seck bokk benn maam. yaayam di suma bàjj. suma bàyyi di muy suma xarit nag def ci man lu bëri gurooru ti waru ragal cheikh gurooru ti waru ragal góor bi koy doy dëgër géej xaadim géej xaadim kontaan naa dañuy mën laa ci fi Paris suma jabar la naaru Koura rek rek rek ñu dégg ñu bañantu borom andala buri andala buri la cagin rëjëgin taj rëjëgin taj waa bi bis noo def yow yow lay toog yeah Beyoncé you can uh, suma live ku mu rëcc rek da ngay dem YouTube nga def Cheikh Ahmed sa officiel seetaan live bi intégralité du ma édit du ma monté du ma dagg li fa xewoon yëpp ngay seetaan fu mu nekk nii nag xoolal ëppal ngeen xulli ngeen ma ba seen bëti jeex léegi doy na da ngeen di tëj seen live ba suba ngeen ñëw su ma amee envie su ma amoon envie ngeen muñ ba beneen yoon Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi yàlla na sa jàmm yàgg Ndiaye jaata Ndiaye ku la bëgg a toroxal na torox. Fifina Narukura suma jabar ji je t'aime trop fort mon amour hmm, dama doon jooy suma rongoñ yi dafa dafa fragile damay gaaw a jooy mais ni may gaaw a jooy lay gaaw a wooye Maja waa Maja fi loo ne ci jàmm Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi man yow rek laay topp ku la laal ma doxande ku la may jàmm am jàmm dara du <laughs> noppi waat <laughs> dama facile dama gaaw a jooy fekk sëñ baam <laughs> kontaan naa yéen ñëpp jërë ngeen jëf yàlla na seen jàmm yàgg ba suba incha allah d'accord bye bye. numéro bi 78 la 471 57 01 Madia del am jàmm ni nga ma bëgg la ni nga ma bëggee Madia ah.